waaw kay mbaay soxna Mbodia Mbaye ñëwaat nag am nag lu ma leen di téye tuuti xool leen butéel bii néew kàttan jeex na fi awra bu feebar moo fi jeex ci mim réew ndax butéel bi dafa ñëw dindi ko set mi ngi nii tamit li ma leen di xamal ñi koy naan di xalaat amul effet secondaire naan ko tranquillement danga koy naan te dara du la dal te li nga bëgg danga koy am awra boo xamante ngaa néew kattan yow mu leer na ngaa feebul eh, te góor bu feebalee da koy xam nga danga koy naan kaasu ataaya nga reer ba suur sa kër neex jéggi belli mooy bii bii moom ne kattan moo fi jeex ndax jéggi na tarkal la dañuy kaas birib di pan te dafay war a jeex bu dee bi moo koy andi sama waajaa ngi ma koo ci bii bii moom mooy dëgër këcc bii sa awra mën naa gudd mais du dëgër bii moo koy dëgër këcc cay <laughs> dëgër laa wax de mooy bii gis nii mu gàtt nii noonu la garaawe mooy dëgër këcc tabax ci góor ñi eh bii nag yëpp la boole moom day guddal rëyal duufal loo bëgg mu toll ko ba pare dëgër këcc moom ñett yëpp la boole day guddal ba pare dëgër këcc ba pare nag écarté ko mu duuf loolu ba fu mu bu xee dugg ah dinañ xam ne tarkaal la seeg sa dëgg a dugg awra bu baax a dugg ndax jéggi loolu la ñuy wër xamante ne yoon a jàmbaay wax dañuy waxtaan xoole gis nga bii bii amoo ween amoo taat jàpp rajo jeex la yéen jéeg gi may woo téléphone naan man man samay weer dafa tuuti te ku nekk xam na ne góor dafa bëgg weer mooy bii weeri tuuti jeex na fi da koy pomeer mu nongoloo ca kaw nag sa jëkkër di ko xool di bill yi ngay nambax ni ko muy neex mooy bii taati jeex déedéet tuuti amu fi day génn say ans bu ne nangu ca kaw ba pare nag mu tee aana njaay mi ko complet bi dugal ko ba mu ca kaw mu dolli ko mu neex ba boor góor bu la tiim day belli di la may yaayam ak baayam ak compagne ma ki bàjjanam ak ki maama ku ci bëgg taat rek ak noo mëgg a mel dalay may ans benn loola ana njaay ba duuf saf sàpp neex ku la tiim yuuxu ni téléphone nag ku ko bëgg a xam toppal vidéo bi incha allah mi ngi affiché ci suuf nga woote borom produit yi jot ko foo mën di nekk ñu livré la ko tarkala mu xool dal amul effet benn effet secondaire bul tiit yow mi koy jëfandikoo dafa de say ween am feebar wala say taat day am feebar non bii naturel ki koy liggéey dafa wóolu boppam tamponné ko tarkala te gëm boppam loolu xale bu jigéen bi essayel bii muy taat ween ana njaay fataaya complet da ko neexal ba waaw kay mbaay eh soxna Mbodia Mbaye ñëwaat na <laughs> allahu akbar ku ragal du ko wax ah. soxna Mbodia Mbaye ngii ku koy bëgg bëgg ko ci nii ku koy bañ bañ ko ci nii du ma jug ci ko wax ah. dëgg du neex eh. waaw ma dikkaat ci jeeg ji may wéyal di ma laaj may tontu tànk maa ngi nooyi sama bakkat bii eh Mbodia Mbaye lu fi laaj mu tontu ko toog de eh, xaar leneen waaw ah, kay aha tata Mbodia ma su ma nekkee sama borom kër ci kaw laal Tata Mbodj man sama jëkkër day bëgg may wax moom yu neex tamat xawma lu may wax mooy doo foofu doo fa wax lu neex <laughs> doo fa wax lu neex danga fay jëf lu neex eh eh booy màcc Dakar nooy def nga dàqamte ko eh booy màcc limam wala kaani saf sa gémmañ nooy def doo dàqamte ko dàqamte ko ba mu saf ànd ak siitu eh <laughs> xanaa boo ja mbaa yaa vulgaire may vulgaire di wóyal di vulgaire ba neex di wax nag la ma saf te daw ma ci saala yaay ndeer maa ngi toog barke Rasulaay maa ngi ni toog e xoolal foofu amul loo fay wax te bu fa soxla wax de boole aj ak aj ak siicu waaw siicu ma di ko siicu ba Sénégal jaay wàcc ni la xale bi looy siicu waru ee eh, ku lu neex la nuy siicu lu naqari kenn ko siicu te ku lekk lu sax foo jaar siicu siicu tàqamtiku yaa ko moom defal lu saf gis nga biir nekk soo ci nekkee lu mu laaj defal xale bi woyul yow jeeg bu ndaw bi woyul jagaal bandil yem ci sa jëkkër defal la la saf tax leen seen làmp yi yokku seeni déguisement te lu mu vulgaire doyut boo jambaay wax lii maa ko wax xoolal daw ma ci saara yaay ndagara walla nag eh, <laughs> eh, eh, Mbodia Mbaye yaa am fit waaw may waalo waalo pire jigéen ñi waalo Mbodj yañ boole woon tëj ca néeg ñu taal seen bopp ba jeex Mbodia ngi ci la bopp eh xoox dàquma barke Serigne Bamba ma yaakaar Mbodia wax lii ku am question booy posé dikkal ma la koy tontul di ko rajaxe di ko rajaxe ka fallaxe ka dajaxe ba mu ni ma toog di xaar ne xale bu jigéen bi amul loo ci wax moo tax taal lamp di baax moo tax taal làmp di baax ci même réew jékki-jékki naan jàkk sa jëkkër ji di def regard di wëndeel sa bët yi di mattu du xulleeku ndax gis nga yooyu ngeen di xeeb ci biir ne góor gu nekk ak li koy daaneel moo tax na xoolal meññeet ba mu laaj ci kaw la bi bëgg na ko defal ba mu neex kenn moomul yaa moom sa jëkkër yaa moom sa jëkkër nekk moom ci biir nekk bëgg nga koy def ba mu neex pour nga ko soxlaa defal noo ko soxlaa defal noo ko bëgg a defe te mu neex ko def ko neex neex ñépp ko bëgg <laughs> ay Mbodia Mbaye waxati naa li ngay wax neexut a bañ eh Mbodia Mbaye li ngay wax neexut a eh, bañ a déglu nag ana làqatu di ma déglu ana wéet di ma déglu ana dugg sa bruq takk say casque di déglu Mbodia Mbaye kan neexuma bañ waaye la may wax a neex neexuma bañ nag dëgg du neex il faut ñu may seetaan man su ma doon caga wala may vulgaire du ma dikk ci internet bi ni déj di wax du ma amoon sama bopp maa sante sama bopp samay làqutu def la ma saf ku wóoluwul boppam mooy daw internet mais jéeg bu wóolu boppam moo neen faraax ci internet bi toog rusuma jaar fenn au message interdit man boo jamaay moo tax lu ma wax lu ma neex du ma saf def lu ma neex wax waaye du ma wax mukk luñ may xeebee du ma wax mukk lu ma nit naan ca cam sànni ca mbalit ma man boo ca mbaay dëgg la darul neex te Sénégal jaay gi ñu nekk na eh boo ragalee doo jéggi raay te fii boo fi ragalee doo dem xoolal li nga sentir eh boo ca mbaay kenn fekk ko fii ni ko eh kaay ma fay da salaire nga sa gémmañ boo ca mbaay kenn fekk ko fii génn sa poos jox ko ni ko del dundee sa noppi kuy wutoo làmbañ boo wutoo ba noppee raflee allah ci fàllu mbàkke laa gëm barke Seex Ahmadu Bamba laa yaakaar tiituma dara raw ma dara nag saara yaay ndeer yow jéeg bi sëy bëgg mbooja mbaay te soxla mbooja mbaay ah yooyu eh, mbooja mbaay ko bañ bañ ko ci erreur xale yi ci miim réew ak mbooja mbaay li muy lijjanti ci miim réew eh, eh waay ay waay te maa bëgg ndax man dawuma yàllaa moom bakkat bu ko ne càppit waddal ma dem tëddi dee benn la dee doo deewaat waaye tànk maa ngi nooyi ànd ak sama sant gii wér doomu aadama njaay yi ma bëgg di ma déglu di ma di ma sant seen xol bii kenn mënu ci dara taal bu yàlla taal sànni ca ma tëggat di ko fay barke rasulaay daw ma dara xale bi cagal xale bi woyul bandil nëpp sa jëkkër teeku ci biir kër gi di ko riitambale ba mu neex amul midi une heure deux heures trois heures quatre heures cinq heures amul heure foo ko sàndira yow jéeg bi te pare nekk ca ba mu neex cuuraay fer parfum nuisette sëri weex nalli daraay weex lonk-lonk rajaxe falaxe rajaxe eh ba ca rëbase dafa lala saf loo mën ci sa jëkkër ji caga loo mën sa jëkkër ji bànd ci am góor gu bañ lu neex koo ci defal lu neex mu ne nemm sa karam ne xaru neex neex neex nag dafa bëri façon ci kàddu ci jëfin ci kaw la ci xol ci anam yépp la am yéen nag jéeg gi damaa bëgg ngeen di jox Mbodj Mbaye eh, bon dama seetaan ndax li may wax daal neexut a dégg nag day miti <laughs> jéeg bu baax bëgg a sëy xam ni muy téye borom këram bëgg a téye borom këram ni ko ka yiw mu ne ko kat raw raw ni ko kat yiw tiiw ki yooyu bëgg Mbodj waaye jéeg bu bëri fo bëri meññeer bon taar kàll ah doo mën a bëgg Mbodj Mbaye ndax li muy wax day miti te la wax yëpp bu dëkkee ci yow dama mën a bëgg waaye man lii may def nii man Mbodia Mbaye du ma ci ku ma ciy bëgg na ma ci bëgg ku ma ciy bañ na ma ci bañ Mbodia du jóg ci lii cagaleen ba mu neex te wuyu ta bandi toon nopp seen i jëkkër di sëy maa wax lii man Mbodia xale bu jigéen bi yow mi may laaj nag sama jëkkër bu ma tiimee lu may war a wax wala la fay wax garaawut rëyut siiju nu koy la pecc da xaar siiju nu koy màcc limam siiju nu koy màcc màdd boole jër ne wëllëx ndiku ndax ku ci nekk la lay daane mbox ja maay noppeegul de te wax ci sa nopp te du ma sam nopp ci kattanu yàlla a bi maa ngi toog ku ragal du ko wax te ragal du jéggi raay Sénégal lañ ne te ku nekk xam ne Sénégal li fi ne ak xew eh boo ragalee doo dem boo jaa ngi toog laay laa xëy la laa ay waay Mbodia Mbaye looy wax nii damaa gëm sama bopp xam li may wax Mbodia Mbaye daa gëm boppam xam li muy wax ku ma ci bëgg bëgg ma ci jeeg ju baax ci jox leen doo Mbodia Mbaye nopp jeeg ju baax ci Mbodia Mbaye du ko ñuy noonoo Mbodia Mbaye ku ñu jox nopp la di ca jàng li may wax du pour man lu waay mën yóbbu barke Serigne ba Mbacke lu waay mën yóbbu li may wax du pour Mbodia Mbaye pour xale yi nga xamante tarkal la xamuñu mënuñu bëgg ku leen gin Mbodia Mbaye daf yàlla jox ma mission bi ni ma ubbi sa gimma gi wax xel mi may waxee ko ma koy jàpp sunu borom mooy borom mbaar ku nekk ak mission bi mu lay doxloo ni ma Mbodia Mbaye tëj ci sa gémma ngi yeel ma xale yi ñu dégg waaw ma ca wax maay waxa waxa waxa wax ba Sénégal jaay gépp daje ni ma Mbodia Mbaye lu xew man leen bëgg a wax ak di wax <laughs> yow boo jariñoo jëlal boo jariñoowul baal kenn ci jàpp neex-neex ba naan Mbodia Mbaye war mu kon nag Mbodia Mbaye tey Mbodia Mbaye suba Mbodia Mbaye ginnaaw suba ci kàttanu yàlla Sëriñ Bamba rek laa gëm te yaakaar ko mooy borom màggal gi tubaar fakaalam asàlla xoolal dëgg du neex ku lay bëgg na la ci bëgg ku lay bañ la ci bañ jeeg bu bon du ma bëgg jeeg bu baax rek may bëgg tëri sa bëgg jëkkëram te bëgg sëy waaw kay mbaay soxna Mbodia Mbaye ñëwaat nag am nag lu ma leen di téye tuuti xool leen butéel bii néew kàttan jeex na fi awra bu feebar moo fi jeex ci mim réew ndax butéel bi dafa ñëw dindi ko moom set mi ngi nii te bi li ma leen di xamal ñi koy naan di xalaat amul effet secondaire naan ko tranquillement danga koy naan te dara du la dal te li nga bëgg danga koy am awra boo xamante ngaa néew kattan yow mu leer na ngaa feebul eh, te góor bu feebule da koy xam ah mooy bii danga koy naan kaasu ataaya nga réer ba suur sa kër neex géej ji belli mooy bii bii moom ne kattan moo fi jeex ndax jéggi na tarkal la dañuy kaas birib di pan ah, te dafay war a jeex butéel bi moo koy andi sama waajaa ngi ak ma ko wóolu tarkal la ma dikk ak yéen ci bii bii moom mooy dëgër këcc bii sa awra mën naa gudd mais du dëgër bii moo koy dëgër këcc cay <laughs> dëgër laa wax de mooy bii gis nga ni mu gàtt nii noonu la garaawe mooy dëgër këcc te baax ci góor ñi eh bii nag yëpp la moom day guddal rëyal duufal loo bëgg mu toll ko ba pare dëgër këcc moom ñett yëpp la boole day guddal ba pare dëgër këcc ba pare nag écarté ko mu duuf yool ba fu mu ne bu xee dugg ah dinañ xam ne tarkaal la seeg sa dëgg dugg awra bu baax a dugg ndax jéggi la ñuy wër xamante ne yow Ngoja wax dañuy waxtaan xoole gis nga bii bii amoo ween amoo taab jàpporo jot jeex na yéen jéggi may woo téléphone naa man man sama ween dafa tuuti te ku nekk xam na ne góor dafa bëgg ween mooy bii weeri tuuti jeex na fi da koy mu mu nonguloo ca kaw nag sa jëkkër di ko xool di bill yi ngay nambax ni ko muy neex mooy bii taati jeex déedéet tuuti amu fi day génne say ans mu ne nangu ca kaw ba pare ne mu tee aana njaay mi fa taay complet bi dugal ko ba mu ca kaw mu dolli ko mu neex ba boor góor bu la tiim day belli di la may yaayam ak baayam ak compagne ma ki bàjjenam ak ki maama ku ci bëgg taat rek ak noo mëgg a mel dalay may ans belli loola aana njaay ba duuf saf sàpp neex ku la tiim yuuxu numéro téléphone nag ku ko bëgg a xam toppal vidéo bi incha allah mi ngi affiché ci suuf nga woote borom produit yi jot ko foo mën di nekk ñu livré la ko taar kàlla mu ànd mu dal amul effet benn effet secondaire bul tiit yow mi koy jëfandikoo dafay de say ween am feebar wala say taat day am feebar non non naturel ki koy liggéey dafa wóolu boppam tamponné ko taar kàlla te gëm boppam loolu xale bu jigéen bi essayel bii muy taat ween ana njaay fataayu complet ko neexal ba mu neex